lan ngay teg ci table bi exactement étudiants yi ñu ngi ñuy déglu. Mm-hmm. mais kañ la ñuy ibbi exactement. c'est la question de communication une fois. kañ la ñuy kañ la ñuy exactement pour pour jàngi université. parce que les étudiants pour dire vrai ñoom bu ñu xoolee seen discours bi ñu tenir si seen point de presse bi ñuy def avant-hier ñu tere woon ko au niveau de l'université d'ailleurs même bu day benn point sax boo xam ne ñoom nee autorisation. Mm-hmm. ñoom nee na police nee nañ amuñu autorisation benn boobu benn point mm-hmm. mais concrètement concrètement sànq maa lan la ñu mën a teg ci seen loxo pour ñu xam ne ok donc mën nañu jàpp ci lii dañuy dem école ibbiwaat wala ñu xam ne peut-être dañuy xaar jusqu'en janvier jusqu'en deux mille vingt a jàpp exactement peut-être on sortit des affaires xam nga man du conseil académique bien sûr que campus ah, man wax naa la li nga xam ne ay mesures la yu ma war a jël préalablement à toute ouverture te loolu waxuma ko man mhm. waa conseil d'administration ñu ne ma ñoo ko jël comme décision prenez les dispositions nécessaires pour mettre en place un dispositif de sécurité en mesure d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des équipements. Donc tant que sécurité boobu amul. ah oui